te wax naa ko keroog bi ñuy lancer mouvement bi demal ne kiy wut nguur ngay yootu nguur defe naa jàmm itam war na laa soxal parce que suba boo toogee nga fekk fa ay et comme on dit qui règne par l'épée périra par l'épée boobu Ousmane Sonko moo nga koy jagleel Ousmane Sonko ak képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci wàllu politique parce que c'est important parce que pour moi sensu engagement politique bu fekkente ni intérêt réew mi moo la soxal jàmm nga war a jiital dal nga war a jiital respecter sénégalais yi nga war a jiital